ba ci ne àggale deuxième partie bi ki ni waxtaan kat muy Cheikh Ibrahima Fall moom la seen baab boo xam ne Ibrahima Fall baabul xuloomi wa baxdul xekkama abadan billaahi nee na waat naa ko si yàlla ne Cheikh Ibrahima Fall mooy mooy buntub xam-xam di géeju xekkama bu faw kon kooku kenn du moom moom Cheikh Ibrahima Fall waaw ndax daana wax naan alxuraan wax yàlla lay toccale jëf ko jaami xam ko moo gën a gaaw nga xam ne jëfi Cheikh Ibrahima Fall joo gis rek moom boo demee si alxuraan fekk ko fa ndax kat avant mu ñëw seen bambar kaabiru alxuraan la daa naafila ñaari rakka bu jàngee xaajub kaw bi aj benn tànk bi ba mu jeex mu wàcce beneen tànk bi jàng xaaja suuf bi beneen rakka bi kon kenn du moom moom Seera wante kër bi mu jébbalu suñu bamba la jël lépp jébbal ko suñu bamba ndax nee na jébbal alal bu ngeen bëggee alal fi yàlla da ngeen jox alal ngir jëm yàlla bu ngeen bëggee doom fa yàlla da ngeen jox seen doom ngir jëm yàlla ku jëm fu sori nam fa lu bëri da ngeen ko gàddu kon kenn du moom moom Seera nga xam ne kër bi mu jébbal suñu bamba nu ngi doon xam genn araf si alxuraan wante suñu bamba kat dégg daa xarañ dafa xëy bis na ma ñi woo leen ma góor a jóg góor a mun woo bu ñëwee mun a wax ma góor a am ñoo tey dem daara kaamil woo seen góor a fa nekk nga xam ne bi ñu woowee góor a jóg mu ñëw seen bàmba dina góor mii laay wax ndax yàlla kat moo ma woo ba mu mu ne ma góor a jóg julit la ah góor a dama laa bëgg may soxna Faat Fall taw Cheikh yor mu ne ko mbàkke de yoru ma dara lu xanaa kaamil alxuraan yi nga xamante ni moom laa bind mu nekk sa daara ja mu ne ko demal xool sa kaamil bu sell boo xamante ni yaa ko bind sa loxo nga indi ko xam ne kër suñ góor a jóob moom bi mu ñëwee daa yónni kenn ci fere yi ne ko dama woo sa bàyyi si rafaal nga xam ne kër bi mu ñëwee dana ko kat góor a jóob nii yàlla dama woo ba mu wuyu ko mu ne ma góor a jóob julit la moo tax ñu naa ko ñu ko daa wax suñ góor a jóob julit yàlla dama woo ba mu wuyu ko mu ne ma góor a jóob julit la moom laa bëgg a may soxna faat faal seen faal na ko mbàkke waxal li ma def ma tuub ko ndax kat yaa ma moom moom kon saaral sa nga saa def lu la neex doo tàggoo kon mbàkke waxal lu ma def ma tuub ko mu ne ko soxna kat boo koy maye daa baax nga yëgal ko waajuram di xamne kéro keroog touba da yëkëri yëkkati kaamil ba tek ko ci loxol cheikh ibrahim fall nako li la goro jog tek ci loxol cheikh si nga mom cheikh moom fall kat dégg nga xamne kéro kamil kaamil ba la jël di bak di jiñ bam kërëm da asin bamba Al ji ma ko jébbal mu ne bëgg bi la sama kër gëk tax mu def li nga xamne taw cheikh rafal sin bamba kaamil Al lako may maye wante ñun ñi ñëpp nan xol ku nekk sa digënt ci sëriñ ku sëriñ woon bu ñëw mu ne damaa bëgg a may saalihu sa soxna sa doom soxna kaamil alxuraan bii la yëkkati teg ko say loxo da nga naa ko suñ bi kaamil alxuraan baax na lool wante jigéen boo koy may da teg dara si loxoom est ce que mën naa teg lu ëpp kaamil alxuraan sa loxo kon Cheikh Rafal jàngaleem Cheikh Rafal moom la war a indiwaat ndax mooy université di musinel di bete bete di noobul ku ko rëy doo dem kenn du moom moom Cheikh Rafal ku nekk dégg ni tàkku say ndar bu daa dox jagamaar ji ak jongoma ji ñëpp dañ ko yéem di ko ñëw di ko di ko di ko siyaar di yël seen xaalis di ko jox ngir taar gum taaroon moom Cheikh Ibra Fall kon yow loolu Baye Fall bi foo nekk da ngaa war a nekk roy waay ndax sa sëriñ la ñëpp ñu roy kon foo nekk da ngaa war di wane nan la ak naka la bu naal nii la ak nee la rek xoolal sa bopp barke maam Cheikh Ibra Fall da xam ne foofu sa ndar foofu la nekk liggéey seen bamba si njaago ba ñëw ne ki yóbbu si tukkib géej gi kii ñu si bàyyi moo ko nar a ëpp nan ko nax ndax moom day loo ko naxasee tool mu jël ñu ne ko faal kat dañ laa bëgg a tuxale fii ci njaago yëpp la bopp jaaro jox tool mu ne ah doom bisimilah jàmm ah tiil na dëpp ah, ñaata laay fay ñu ko faal doo fay dara fii ci njaago yóbbu la bopp jaaro fay tool mu ne kuy liggéeyal fii ci njaago doomu jaara ñu yóbbu la fa fa bopp jaara kuy liggéey fii ci njaago doomu jaara ñu yóbbu jaara jox la fay tool ah doomu jaara fay na la kon kenn du moom moom seere nga xam ne xarim daa rey foofu ci ndar ku nekk dégg na ko alaaji Maalik Si Moor Saxe Mbay ñoo ko daa rey di ko defar bu ñëwee Seex Rafal teg ko ci géej gi xët ku ne ko fekk leen si Bamba la bar maa yombe wante keroog bi ñu ko dalee seetaan la ko toxal moom Seex Ibrahima Fall nga xam ne jàngale Seex Rafal lu war indiwaat ndax nee na jaam bu buñu xasan jë buñ jëleen aw xas def ko mënew tàgg aajooy jaam yi faju jël liggéey coono def ko noflaay jël naqar def ko bànneex nee na aajooy faju da nee na mbay mu ne ko faal mu ne ko liggéey gënuñ njàng joxe gën julli manda gën koor kon kenn du moom moom si faal fukki nday ak ñett am na ko sayri bu njaay bu ko mu indi kon kooku digg ak suuf démb la téedoog di bu daa dox si yàgg muy jël benn tànk ba di ko tepp bu ko defee yaram mbay ne ko ah doom ah yaram mbay ne ko faal doxalu gone moo ma jaaxal mu ne ko ah yaram da ngay gone loo tax nga gis doxalu gone ah suuf kat digg ba daa mat ndax machine bamb dañoo wax dañ koy tàllal ngir ñu xettal si jaam ñi digg bu mat loo tax may dox ba si yàgg suuf di onko may tànk bi ko xam ne diggam ak suuf démb leen tey du di ñëw ku dox si kaw suuf war ngaa xam seen bamba Cheikh ak Ibrahima Fall loolu seen bamba ne Ibrahima Fall samsun kullu makkaana islaami yowmal xiyaamati billaahi nee na mooy jëntu bépp makkaan bu nuy jaamoo yàlla nga xool ci kaw gis ab jant yi seen bamba ne waat naa ko fi yàlla ne jant booba Cheikh Ibrahima Fall la kon kooku kenn du moom moom Cheikh Fall foo nekkee jaamu yàlla la rek jàppal na si kattanu loo tax mun a gën moo gën gëmee lu jëndi ku ma doon huwa ismil Ibrahim fall turum bi rek li taxal li kuli babil jant salam turu cheikh fall mo tuddi guddi and ji aji lepp bas ci jant firdausi lo tax mun rabbu samawati wala du ngeen gis alquran ma ak seen bambal yalla lepp seen bambay asman man cheikh rafal ma suuf ehe do wax len ak man te ni mun du jaru ci asman te jaru ko ci kaw souf kon kenn mom mom ci ibrahim fall ndax ku nek deg na cheikh amu jof imam am bal la wax bu ko gisen dina ko laaj lu mu xamul werd wurut werd jinne mom cheikh amu jof werd nako comme dem rawal fa yàlla wante keroog bi mu ñëwee mooy ismul kabir mooy laa ilaha illallah karimu hamidun bu ne la waxal jërëjëf seen bamba nga defal na ko tàkkusaan ju nekk muy dem àjjana ak ñëw kër gu mu gis ba kër gi yéen ko bu ñëwee ñu kër gi kër aboru jalu lahi la bàyyi góor jëm si yàlla suñu borom ma ne ko fee julli dàq ko fee woor ma ne faal boo doon wër monde bi amu fi wante xoolal kay suñu fàll bu ñu ko defaree ba mu mat àgg mu mag ñi ba ñëw na ko xam jënd ak jum ne ko xam ku ma ko tudd ma jox la ko mag ñi naa diw ak diw mu ne junni si poosam borom tudd naa ko coow sa kaw ko ñuux joxe muy lamp Fall Babul Mouridina nga xam ne keroog mag ñi dañ doon kaas naa ku du julli da woor ñu koy tuddee soloor suñu fàll wootewaat ba mu ñëw li leen wax lamp Fall sa kaw ku leen xori ma xori ko ba muy car cari man Fall au kon kenn du moom moom Seere Fall te loolu lu muy toj booy dugg Touba moom ngay njëkk seen booy génn Touba moom ngay mujj seen te saayir boo gis baatim bi lay tojtale kër gu Sidi Ahmadou Diop faxa xool ba kër ga yéem bu ñëwee ñëw kër gii kër kër kër Cheikh Ibrahima la parce que ba da koo defalan tàkkusaan bi nekk mu dem àjjana fi ñëw moom Cheikh Ahmadou Diop faxa moomee kër gu gis ba kër gi yéem bu ñëwee ñëw kër gi Abdou Diallo Ndaxe ak moom moo ñàkk ñaan moom Cheikh Ahmadou Diop faxa dafa waaj ba jekk ñëw njaareem fekk mu kànnam yëpp toog mu ne ko ahmadu mu ne ko mbàkke mu ne ko man ahmadu Diop fax allah yow ko bar bu yalla sun borom jëlee sirat gaaj ko ci jahannama ku do junne don juróom-ñaar juróom mala ko don juróom-ñaar yalla sun borom den bak bakam yoyé man cheikh ahmadu Diop faxa sama julli ak sama jaamu yalla beugutuma sa dara loolu cheikh ibrahim fall kat jël loxom bu tedd ba tek ko sama ko boobu ba ne ahmadu Diop faxa sama xarit la seen bama dind bu ba mu yàgg mu ne ko ahmadu mu ne ko mbàkke mu ne ko xanaa da nga sin pëndëm ba cheikh ibrahim fall day ku sin pëndëm ba def mi yow ndax tek na ko si bak sanni ko fo foo di liggel goor yalla do fa yeb goor kon kenn mom moom seex fall loo tax ma ne sama limu karo gi faq xadum la mu ne uróoni asri 6666 aayal xawaan yi ak 6124 tur yónent yi nekk moom la ala jox ak kubar bi yàlla suñu borom jëlee siraat gàcc ko ci jahannama ku doon junne doon juróom-ñaar ku doon malaaka doon juróom-ñaar yàlla suñu borom di leen bàkk man Cheikh Amadou Fax man Cheikh Ibrahima Fall sama ka nekk foofu lay taxawee muy 6666 ku santan walau wala ku santan kusapan wala ku soppan bay faal wala ku doonoon bay faal wala ku dum dara mo gëna sama sëriñ neena sëriñ si leen jàpp ma wujax leen àjjana wala ko jàkkoor seen bamane ku ko nan lay defal imam imaamun kulu mouride lahi yamal khiyamati billahi mo seen sëriñ la waxtu seen tëkk bëna gëna xiya xamne ka muy dox njaare gis goor yalla gu sell mu ne ko ndongali xana mouride nga mu ne ko waaw sa fa jël ñaari buti omi su ko suuf nga xam la giñe billahi wallahi barkat kaaba ga lu yalla sa borom bind kat mouride mo ci gën jël loxo ba tek ko ci dënd ba da wante murid murid ibrahim fall kon bala nga doon murid ci arikh da nga melni cheikh ibrahim fall ndax la min sa mbacke ko joor mu ko ci gënal ñëmal ñëpp liggéey joxe ko ñak lu ko ñuux ñuqi bo lek ram ak joy joxe ngir lan ngir bëgg yalla ndax ni day ñëw moog seen mbamba tànn si naafiqi ci bir islam ndax saytaane dina julli dina wo net mburum ko dina aji makka na julli julli juróom na wër wër gor wante joxe aw ñakam te borom rek tax mo la mënu ku ci jaar ñu labal la ndax ñak mom do romb dëtt romb yuq yom deret yooyu wóolu seen mbamba serafal ñëw tan ndax kërëm bi yàlla suñu borom tegat angaaram di ko jaay xut bu sama ne aare ki ne yëpp ñëw boo yëkkati doo ci man dara si rafal ne daa ñëw bàkk si jaajul si jaajaam na ko cas yëkkati ko ba mu laal dënd ba mu tegaat ko suuf nee na foofu ma xool gis ko sol lu weex tal yu dox di ñëw muy seexu na cheikh bamba xaalis jël bàyyi serigne saliou bàkke borom jamm jamono daa du jaaxil comme doofaan njàpp na jurul borom mo xuraas mo turundo ki waxan jox leen man taw yi ma def ci seen bamba defal sa magna nga ya, xam ndaw lo gis ci yi góor yàlla yëf mais nag sol lu weex tàll kaalaw yor kursi dox di ñëw bi mu ñëwee baaraam càngale na ko ca si yëkkati ba sa ko liggéey Seydina Muhammad ba ñu ne ma ku nekk dégg na ko nawetu nga xam ne foofu la ko wax mu ko da nga jiitoo jamono kon ñetti at demee nga feeñ si askanu suufe su ma ñëwee feeñ si askanu kawe wan jaami nan la ak naka la ndax doomu aadama rëy nam xëy rëy goo xam ne sin Bàmba ñëw na maa leen ni moom beesu ko gëm ndax dammeel ak baaxaan buuru fi nekk ñëpp maa leen ni moom rayante lu ko da feeñ sa baaga bawol su ma ñëwee feeñ sa keef ga kajoor feeñal si ak si baaga bawol mu ñëwee feeñ sa keef ga kajoor suñ bamba feeñ si baagi seerafal feeñ sa keef ga loo tax suñ bamba feeñ si askanu mbàkke loo tax mun a mbàkke ak bukki ak bako ak mbeng na yaax ba yemay laa leen yemalee ba may jébbal suñ bamba ndey ak bàyyi xew ba santee xew amadou sirif da nga xam ne suñ bamba moom lay yem moom lay moom lay jaam ëllëg jox ko bar nee na loolu moo ko tax a jóg ñew di wër sin bamba di wër seen bamba ba gis ko indi ngi sin bamba yaani mom suñu dundok suñu deel yaani mom mam bamba yaani mom te kenn ku nek xamna ne yaani mom mo gëna wër malé ni mom te kenn ku nek fi nga nek bo xeye di ñaan seen bamba mom la kon koku mo régler problème bi mom cheikh ibrahima fall xol kër bi xam seen bamba nek na njaaram di wax ak mag ni ci mujju jamono di wax ak mag ni ci mujju jamono ba tank jep né le sour na leen kël bëggutuma leen gis reud aw reud né ku mo fekk ci biir bo faato dem safara nga xam ne keroog mag ñi jàq ak njàqare moom leen yëndoo ba ngoon jot nga xam ne keroog bi Cheikh Fall ñëwee daanu say matoo ñu dof ba ñëw na buñ ko waxoon ñu ko jéggi ñu ne ko Fall day tey danoo yëndoo njàq ak njàqare ndax ku tedd këpp dafa rëdd aw rëdd ku jéggi fekk si biir dem sawara Cheikh Fall ak xëy doom ana rëddoo ñëwoon ko rëddoo mu xaal ba doon far ko jéggi jàll bi mu ne mu ko amul ah mu ne la mu ne ko Ibrahima Fall mu xanaa fere yi waxuñu la dara mu ah tudd nañ tudd aw rëdd tudd àjjana tudd sawara mbacke day ma jegg diw fekk la si dem safara ma bañ jegg jéggërë ñak la jegg dem ajana ma jegg diw mbacke fekk la si dem safara mom kena mu ay rahim fall lo wax mu mu jegg diw fekk la si dem safara ma bañ jegg jéggërë mbacke bañ la jegg dem aljana ma jegg diw fekk la si dem safara mom gënal man ibrahim fall dama wax xere felay kon fofu li seen bamba li cheikh rafal na ma jàngale foofu mooy seen bamba moy ceeñeer gu jël si lëndam kenn du ko dëgmal jëlam njëriñ lu ant ak loraange la fu rek amul lu lay kon kenn du moom Cheikh Ibrahima Fall mu ñëw leen gën a xujj di ma xool lu ngeen jug ci tiitaange seen bàmba rëdd na rëdd tudd àjjana su safara jël naa rëdd xalango si ba gisee rëdd di ngeen ma topp dégg lu may wax ak moom waaye du ngeen jug ci tiit kon kenn du moom moom Cheikh Fall nga xam ne seen bàmba daana woo mag ñi ba ñëw mu ne ndax xam ngeen benn xel mag ñi ñaar mooy bënum benn bët mu ne beneen bët bi pattee nag ñu ne teg mu ne benn xel day mooy Cheikh Ibrahima Fall xelam mi day mos a génn lu man Cheikh seen bàmba motax tax sëñ wax na ko séebu far ba jitu len bamba bambandi ki ëpp na len ndax may nguré gi faal war na ko ndax fu mu toll xol bay ndox noxe tund mom mom seere rafa nga xam ne mas ne dox ndiaram ba mu mu gis góor yalla gu sel na yaram bay ama sama njaay wax ko wóor leen ma kee ñu woo ko ba mu ñëw mu ah, sant wax mu ne ko busa mu ne ko kon nak busa ga dégg la ko seex rafal wax kon nak busa na ko ndongal ndax man na lu yónni si marché ji na jóob mu ko waaw ndax kilifu mo yene ma dem nga xam ne bi mu doxee juróom-ñaari jéego la Cheikh Rafal ne eh, doom wax na dëgg ndax taxaw kat wóor naa fi njëkk sant Bousso ba kii mu ngi sant Bousso gis ma ko si biir waaye bi mu doxee juróom-ñaari jéego la saa borom xamal ne bu noo jëndan maam sant la ko Bousso loo tax ma ne ko kon nag Bousso ñaari jéego yi mu dox yi mu dox da dama tax jéggal ni si juróom-ñaari maamam mais war nga wane ginnaaw ne ko dox juróom-ñaari jéego dama tax jégg si juróom-ñaari maam kooku mooy Cheikh Ibrahima Fall ma ne koy taxaw bi mu taxaw wóor njëkk sant Bousso ba kii mu ngi sant Bousso mu ne kooku ñenam di leen fàggu démb te du di ñëw te bisab alas bi rabbikum bi yalla suñu borom bindee réew yëpp jël ñu mel ni engol gerte mu ne xaalu balé ndax kim jëmee fa la seen bamba tanné bi mu wo Cheikh Rafal mu jóge si géej gi leer ga muy la ilaha illallah mom Cheikh Rafal ñëw fa la tànnaat ak Baye Fall Baye Fall foo nekk da nga wara wané nan la ak naka la kenn du mom moom Cheikh Rafal ndax nah, na liggéey gëlum jàng joxe gën julli maanoo gën koor xoolal ki ñëwoon si moom na ko faal lu tax doo julli doo woor di joxe ndogu mu ne exe doom ak ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mu ne ko bindal ndogu mu ma deel keef al saxeer mu ne ko deel ñaat la mu ne ko ñaar la mu ne ñaata mu ne ko juróom mu ne ko muy ñaata mu ne ko muy ñaar fukk ak juróom-ñeent mu ne ko secret bii dama seen bamba jox si weeru koor saa naa seexul bamba si kooru ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mu ne wér nga seen bamba nangu na ko yéen ñaar fukki weer ak juróom ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ngeen woor xamu leen lungu doon ko am déet man dinaa am ñaar fukki weer ak juróom-ñeent yoo xam ne wér na ni seen bàmba nangu ko ay doom Ahmadu mooy julli loolu tax yàlla wàcc Muhammadu boo taxawal julli la nga sëgg muy xaaloo ko suuf boo tagoo di boo taxawee di julli alif la nga sëgg muy xaaloo nga tësëb ji suuf muy miim nga toggi taaya muy déel mu ne ko Ahmadu Bamba ngi noonu lu tax mu julli ba ci biir géej kon kenn du moom moom Seera Fall moom rek moo dégg sin Bamba kon ñu ngi tudd bu baax deuxième partie foofu lañ koy yemale si barkeb Serigne Naar Ndiaye yi ñaanal seen production suñu borom teg ci loxo ci barkeb màggal gi bu fu ngeen bëgg mu egg fa rek suñu borom def ko mu mel ni Lamp Fall barke maam Seera Fall ndax lenn ñur leen lu yeesal liggéey Serigne bamba seera fall bi loolu nag ku fi nekk moom noonu rek la ku dem ma dem ku demul ma dem foo gessoo gis ko la wéttali barke maam seera fall ndax li ñuy def kat bu leen ko xeeb ab tànk lu mu tuut tey dox moo ko tere tànk bi nga xamante daa rëy te doxut ndax ma leen a jóg kat nekk si leneen caaxaan da jóg rek ma Serigne bi loolu ndam rek ngeen si am barke modou moustapha fall dara jaay Serigne naar njaay ñu ngi tuub baax di ñaanal suñu Serigne si naan jaay te wa kawa suñu borom yaagal ko fi te wér ndongal Serigne saari njaay du ci jub ñu xam ne bi la du ci déng ñu xam ne suñu bëgg la